إذ ناديته بيا ولي أيا سمني لو هند ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربنا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربنا لله شكري في شهر ربي على ابتداء الذي اختار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد دعوت برا من مكرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكل في اليوم توسعة ataa qiima li diin lillahi arkaana rabbaytani faltaab lil ama yaa samadi idmaana xayr wa isaadan wa iskaana ربيتني بعديت عام وتربية عن يوم تربية إذ جعت صديانا مكنتني بعد ضيق سقت لي di ko ñaanal suñu borom yàggal ko a damay boole wàcc ci suñu jëwriñ di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ bi la a ngeen jël adde yëpp teg ko ci loxoom sëriñ bi di wax ne mi ngi sant bu baax ci taxawaay bi ak yitte ji rawatina jéego di leen xamal ne seen jotaay bii seet na xolam buy waaye dal na xelam waaye gën ngeen a dolli yaakaar Mbacke njaboot bi toog di seen njabootu bopp muy ay daay jëwriñ daay yoo xam ne kenn ku ci nekk dafa jiite mbooloo mbooloo yi kenn ku jaay yaa ngi bàyyeekoo ci ay kuréel yu fasantikoo mbooloo yi nag yaay jàmbaar lool ci liggéey sëñ Tuubaa bi waaye nag ñi ngi tàmbalee ci seen njabootu bopp gii di daayira ndaw ndawi sëñ Saliou di njabootu sëñ Murtada moom sëñ Saliou seen ziar bi sëñ Murtada si jiwit ja moo leen joxoon digal di ci bu dajale seen addiya ñu ngi ko teg ko solo nga tàmbalee ko liggéey seen tuwaay bi buñ bàyyi ko fii ba sëñ Moussa lañ jëm siyaare di ko leeral ko liggéey Mbàkke jàmbaaru Maam Jaara ma soxna yi di ay jàmbaar lool di liggéey seen tuwaay bi Mbàkke nga ñaanal soxna yi nga tanuk sëriñ bi ak womatu sëriñ ay jàmbaar lañ lool kenn mën leen ci liggéey bi sëriñ Moussa Mbaye mooy ñoom ñooy ñëwoon xasina loolu daara ne boobu ngir fasante ko yow ak kullëre ak ak xaj na bi jox ko ñaan jox toogal toogal maa nee na alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin nee na mi ngi sant bu baax ci taxawaay bi ay yitte yi mu ne lii ngeen def yitte la lool na sëriñ Saliou lu ko waaj defal rek moom ñi nga ko defal ndax mbooloo nii nee na nee na nee na jéego yi ngay def ba ñëw toog ci jàkkaarloo ji moom gii mu ne xanam seet na ci buy waaye xelam dal na ci waaye yaakaaram gën na ca dalibu mu ne nag di sant seen jiwriñ ja jiwriñam ja di sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Saliou nee na addi ji bu yemoon ci moom mu doy sëkk waaye moo tax mu yebal leen ngeen ñëw jox ko mu tàmbale bu liggéey seen tubaab kon sant na leen mu ngeen topp yi waaye mi ngi leen di leen ñëpp leen may leen wér ak i ngeen gën a mën a sax ci yi jërë ngeen ko mu ne nataal bi gis nga moom lañ ci sant bu baax di leen ci gërëm baax a baax محمد مواهب وفوائد الاولاد وللا موسع بعدما خد قدور يانا ناجيتك اليوم يا من أمسك رمني وسقط لليوم إيخانا وبرهانا اجرب قلوب النسارى يا خدير إله nasri warudul ya man xad aza aw hana bi kawnikal waahidal qahhaara munfaridan liqari daana ala bushraaya idmaana نبهتني أمسيتا بأن أرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمنا يسرت لي أمسيا لليوم توسعة بها ولازم ما ترداه إنسانا آويتني بعدما داخل فؤاد وزن فسرمدا ليرى جنا وإنسانا أسلمت واجي إلى كاليوم ساخدا لمن غدوت له كابا وعسانا دعا بدادي قدا عجيل خدمتي من تبشير درر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا وجه صلاة بتادي من له أبدا ولي بيانا وآمي كفرشانا حملتني ربي بيت تكريم دونانا في البر والبر زين رزقا وتكلانا ملكني العام يا وهاب فخرجا إي والترد وليا داء ومسلانا ليجد بريق على طيب وقني ما لا ستر داوي إسرارا وإعلانا ناجيت برا ريما مخنيا وله أمري أفوض أرجو نصره الآن أشكر شكري واسع لينا وخدا يا واسعا مخنيا ما سال ديانا هب لي بكونك وابا منايا ما أتاكون بماء الخيب ريانا مكن واسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر يا عدنان فيانا فيك اجعل المكسزا فني بلا سنن وكمل الأنبياء أحيانا فأحيانا يسر لي الخير واسمني وسد رشدي يا نافعا لم يسل برا ومنا إليك قلبي وجوز معني كذاك يدي يا هاديا لم يزل ربا وأنانا لجد بالخويا ذوي الإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان أزنانا بكونك القاهر الجبار روتنا الله الناس جبارا وسلطانا رل سلاطينا الأقار في أبد والتمني واكفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تأميني وتنصرني نصرا عزيزا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكرا داي ومعهم فلتكفني سرمدا إقدا وأدوانا اغفر ذنوبي واب لليمامة لبتي bikun warum bihi li sarmadan shana li firaq allazi lam tardaw xuluqan wal tamu an ya xafaar ma shana بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنسر ساج أن ثم ميزانا عجيب قلبي تخاب بل وكفني خطأ ولتوشيني وكم مني بما زانا ربي سجل ولتكم مما نويت لدى تبلتي بكتب نافيك بنيانا وجدت واديا مسبت مرتديا إلا الذي سمدا إن خالك كان رب كريم عفيس واسع سمد وابتخي من أتي سيرا ويسكانا زد الميال يوم سيدنا خد يبشرني فتعا وفيدا ورود للدار سجانا خدير خار يا jabbaaru yaa xaradi rub lillasi yaa xusool amwaala majjaana naajeytukal yawma yaa barran alayya law shukurun yuxaajilu yaa xootan wa marjaana أنت الحلي العزيز ملعد يا حبيبي أنت العليم الحليم البر الرحمن هب لي بحقته الأسماء خير يا من أمسى يكابد إلى الأخ أزمانا منك التماس الذي أعطيت صلحا أتى به خير الأعداء إدمانا ملكني اليوم يا وابو متهلبتي wal takfini kayda man lil hirsi qad mana najaytuka al yawma ya faqri ilay fakaw li mukhniya aftan lil yawma bi bana ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتان لليوم بيبانا ابتالي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر في الرزق إبانا ليكن بجود وإيس حاد ومرامة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا درر واجعل بفضلك هنو في ربي قربانا يسر جميع الذي أرجو وألبه حتى كون خير العين جزلانا يا ربي خذ لي في دارني كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخذلانا بين لي الحقك فلا يفارقني كما كشفت لآل الله تبيانا ازر قلوب الله ديانا زايما لنصرتي وجبي شيبا وفتيانا taraktu ansi lasi xat biitu mada fadara badil wa an ku fa xisyaana wajini yal kashfa wa tasiri ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتواب لي فات عن خدري عجبا يا خير ذي هدى خمرا وحيرانا دبت الكريم الذي يخري بكن أبدا وأنها ونفي توبا يا قد أنا ديوت الكريم الذي في البر كرمني والبارئ ساق لي بالفيد قرآنا لو ختابي ما سبت في وطني وبان لي أمس ما قد سار برهانا نباتني أمس زيد فيدا ومعرفة وسرمدا بيهنهم والرب إذهانا اجعل رجوعي إلى قوم سعادتنا والتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا اجعل جاهلا قوم سعادتنا والتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا هب لي بفضلك كون ni sarmadan faraan sant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant baax yàlla ci boole gi mu ñu boole ci wàllu Xaadimu Rasuul waaye di delloo njukkal suñu jàmbaar ja Sëriñ Saliou waaye di ko jaare ci leeram gi Serigne Mortada ibnu Serigne Saliou di yàlla ci ak matam mu téel ñu ko fi ba liggéey bi nu am yéene ci liggéeyal ko ñu defe ko nu faw fa jot man na ko yàlla na ko yàlla def ci barkeb alxuraan sëriñ bi waa daayira tasawudu zixaar di ndaw yi Serigne Saliou fas yéene ànd di liggéeyal sa wayjur yi fas yéene koo jaare ci sa jëmm ji ñoo ñëwaat ci sa karam di yeesalaat seenu njëbbal ci sa jëmm di la gën a yalwaanal rek ak ñaan ci mbokki soxna yi ak ci mbokki góor yàlla yi kenn ku nekk lay gàllankooram ci ab liggéeyam wala lay ay yitteem ci am xelam Mbàkke Balla yaa ñu ko gën a xam fajal ko aajo yooyu bu dee tawat la teggil ko ko bu dee ñàkkare la na dañ loolu it ñoo ngi la koy dagaan waaye ñun moom li ni ñaan yàlla te ko yalwaan ci ak matam sëkk mooy mu bijj sa fan wi teel ñu la fi ba ca kanam ba suñu yéene jëpp mat ci liggéeyal la ndax dañu laa bëgg liggéeyal ba fat barkeb alxuraan ndax gis nañ jàpp gi gis nañ téye gi gis nañ ñaan gi chaque jour muy feeñ ci sunu jour muy feeñ ci sunu doxalin saa su ne ñaan nga fekk fu mën a nekk kër gu mën a dugg na fa asalaamaaleykum dara ñu jox wàccuwaay yu mat sëkk rawatina kër Cheikh Mouhamadul Mountakha bii ñu jóge jox nañ ñu wàccuwaay yu mat ngir sa jëmm ji kon loolu moo nekk kàddu yi ñu ubbee rek duñu def lu dul bàyyi jëwriñ yi ñu matale. li manqué ndax ñoom bu ñëwee rek mbooleem lu manqué danañ ko matale sëkk ku ci mel ni Serigne Barlo ak Serigne Moussa Mbaye jërë ngeen jëf. jërëjëf bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu nuyoo Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général kulli murid naka noonu lañ koy ñaanalee. xalifa général kulli Baye Fall waaye di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke sunu borom guddal fanam wéral ay cërëm barim naanoo liggéeyal Serigne Salim mu àggale ko ci barke borom Touba naka noon lañuy ñuy sunu buntu ci biir kër Serigne Saliou muy Cheikh Mouhamadul Mourtala moom tam ñu ngi koy ñaanal sunu borom guddal fanam wéral ay cërëm. ba nu ànd ba ca kanam a kanam kanam ci barke borom Touba ndax kat ñun ñii bi nu fëggee bunt bi daf ñoo ubbil ngir liggéey Serigne Saliou bi nu am yéene koo liggéeyal ndax Serigne Touba dafa waxoon ne Cheikh Modou Moustapha na nga fexe ba ma fi jógee nga yóbbu ma te bu xat damm boo ko defalee lépp lu ngeen sumbati dinaa ko àggale moo tax jumaay Touba ji àgg ak leneen ak leneen. waaye biir sumb googu ñun dañ ci yëg suñu bopp ndax ku fàttaliku heure bii daaw lañ fi ñëwoon ne ko sëriñ bi danoo bëgg nga ñaanal ñu ñu dajale àddee yuy toll ci ñaari million def ko fii nga xam ne mooy université sëriñ Touba bi bilee ko Cheikh Mouhamadul Mountakha ci yan bi ndax yan bi diis na lool te muy sëriñ Touba nit ko ko ñaanee ñu jàpp ziar ba suñu borom dogal ay xew-xew amoon fi ñu randal ko ndekete boobu yàlla suñu borom mi ñuy wax nañu da ngeen di xëy suba siyaare Serigne Bassirou gontu siyaare Serigne Saliou mooy dañoo xëy jëm ci Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye ku ne gis na mbégte mën a fa jëlee ngir lim ñu wax mooy liggéey bi ca kanam rek. waaye bi ko joxee nataal bi gis na yëg-yëg ban am nataal boobu nga xam ne mooy nataalam bu mu ànd ak Serigne Saliou lu yàgg lool ci ay ginnaaw kon Serigne bi. dafa am ñu mas a ñëw ci Cheikh Modou Moustapha ne ko danoo bëgg nga ñaanal ñu ñu dugg àjjana te danoo ragal sawara waaye ñun Mbàkke tey ñëw biñ fi ñëw leen rek lan lay dagaan te ñaanal ñu daje gërëmal Sëriñ Saaliw te ñaanal ñu ëllëg yow mën a xiyam lii ñu koy liggéeyal mu wax ne du ma jaawale ci fi kenn ak moromam suñu jëf ci Sëriñ Saaliw gërëme ñu ko loolu rek la ñu ñaan tey ñaanuñu alal ñaanuñu leneen leen ëllëg yow mën a xiyam yàlla ñu Sëriñ Saaliw gërëm ba tax na tey jii ñu dajale woon suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm ndax ci atum 2020 leen fi ñëwoon benn ajjuma ñëw andil la juróom-benni téeméer Mbàkke nga nangul ñu ko fii ci kees gi doon ko fàtte nga recevoir ñu boobu guddi woon na lool wala xasim nga jël suñu juróom-benn téeméer ak suñu kurus ak suñu kaala. waaw mu mel ne kon juróom-benn téeméer yooyu àddee ju toll noonu la dajale muy juróom-benn million bëgg la koo jox ndax samedi bee jàll duñ fee ñëwoon am suñu mbokk taalibe yu doon siyaare si ma dégg kenn ci yoroon kàddu gi wax ne da ngaa bëgg a yeesalaat liggéey yi fi Serigne li mel ne daaray Ngaabu ak yeneen daayra moo tax ñun juróom-benn millions yi ñoo ko barkeeloo te Mbàkke Cheikh Modou Moustapha dafa waxoon ne yoonu Serigne Touba bii bu laajoon bakkan wala solo armée ma def ko te Mbàkke ñun loolu jaral nañu ko liggéey Serigne Sali bi ñoo ngi sa kanam ñoo ngi sa ginnaaw ba aljana jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokki taalibe yi. sëriñ bi mi ngi leen di nuyu di leen tatagal di nangu seen dikk ak seen ziyaar bi ah ku nekk gis na ni ngeen ñëwee sëriñ bi gis noo ak maanaam ziyaar li mu toll ci lislaam ak ni mu toll ci ak taalibe ak murid mbooleem li nga xam ne it ànd na koog yéen ànd ànd ngeen ko moom ci ay addiir sëriñ bi gis na ko nangu na ko wàcce na ko wàccuwaayam mu mel ni it doxin la woo xam ne masoon ngeen koo def mu muccoon ayib lool ngeen dellu ko defaat lii ngeen ko defee kon sëriñ bi moom mi ngi koy ànd ak ngeen ko waxee dégg ko noonu rek la ko fas yéen ndax ci ngeen ko fekk naka jekk muy li fi sëriñ woon mu sof rek di ko jekk-jekkal di ko rafetal di ko yóbbu bu ngeen ñëwee am yéene jooju ànd ak moom da koy jàpp bu baax di ko fesal di ànd ak yéen kóllëre googu ah jamono yu weesu waxoon nañ ko mooy jëmmi daara yi sëriñ bi am na ay daara ci xel koom daarul alim ma nga fa daarul minan ma nga fa daarul tansil ma nga fa njàppandal mi ngi fi ngaaboo ngi fi yooyu fi ko sëriñ bi bàyyi woon rek foofu la ko jëlee di koy yokk di ko dolli dara delluwu ci ginnaaw waaye lépp dafa yokk kon su ngeen dolli ko ci mbooloo mi ci ay taalubeem ñëw fas yéene ko ànd moom ñu ngi leen di yaatal ci buntu boobu ndax buntu liggéeyal mi leen tax a jóg la ba tey ba na kon lii ngeen fi indi ni ngeen ko sàkkoo noonu la koy defee seen àddiyee jooju dana leen ci liggéeyu Serigne Saliou boobu kon loolu lu dal xel ah sëriñ bi nag moom ni mu ko baaxoo defee mbooleem ñi nga xam ne njabootam la da leen di digal di leen tere di leen nàmpatal seen diggante seen boroom di leen nàmpatal ci lislaam di leen nàmpatal ci ab bi kon foofu rekk la bëgg ngeen tege fa yéen it ndax mbooleem ñi ko Serigne Touba booleel Serigne Saliou boole koog ñoom. ñu ñëw sobu ci liggéey bi loolu la leen di wax loolu la leen di digal foofu la féete ak ñoom daayira yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi mboolem daara yi sëriñ bi da leen di digal ñu góorgóorlu ci wàllu xam-xam loolu kon seen digal la ngeen góorgóorlu ci jàng rawatina ay ndaw ndax yéen turu ndaw ngeen tudde seen bopp li ngeen ñëwee sëriñ bi feddali ko si tasawudu sixaar kon loolu junj la kon ngeen gën a góorlu ci loolu njàng nag niñ ko xamee ci lislaam nit ki da koy def rek fu yàlla ñëw talabul ilm min al mahdi ila al lahd looy jàng booba ba xam ne jàpp nga ko am na lu des gëstul loola ci diggante liimaan ak lislaam ak lihsaan mooy ak taalu bi rek te ak taalu bi mooy ak murid rek kon sëriñ bi mi ci soññ ci loolu ngeen dimbalante ci seen biir ñi nga xam ne ñoo tane ñi ci def nañ dimbali ñiñ tane ci wàllu woowu ci diggante fer ijji ak xam say farata noo mën a jullee li mënta ñàkk ci ab jullit mu war koo xam lépp sëriñ bi fàggu na ko mi ci téere yi mën ngeen cee jàppaleel bi ci seen biir waaye bu loolu weesoo yëpp sëriñ bi day digal mbooleem njabootam di ngeen bokk ci fi ne muy dimbalante ci wàllu web am na ñoo xam ne dañuy bokk ci mbooloo duñ tolloo ñoom ñëpp yàlla dana may ñi dara ñii mu xaw a yées tuuti bu ko defee kenn ku ci nekk di ges moroomam fi mu sutee jàpp ci loxoom xëcc ko mu dabe loolu tam di ko def ci keppaaram gi ku ko def di nga def lu ko neex ndax bokk na ci ay ndigalam li muy digle kon loolu itam lu jara góorgóorlu la bokk na ji nga xam ne it sëriñ bi lu ko yitteel la mooy mbooloo ñaare dafa xaw a yéeme dafa doy waar boo ko woowee ba mu ñëw it téegee gën a jafe téegi bu yombee it tege ci aw yoon gën koo jafee ci te lenn lu ci ne sëriñ bi bëgg nañu bàyyi ko xel lool rawatina ci biir mbooloo li ñuy tuddee gestion financière maanaam mbooloo boo ko tuddee rek dana am xaalis dana am matériel loolu nag képp ku ko tudd di tudd kilifa yow war ngaa gën a góor góorlu bu baax a baax rawatina ki ngay tuddoo it def ko sa diggante ak Serigne Saliou ak Serigne Touba yooyu ku ko bay xel la. bu ko defee yéen ñi nga xam ne yéen di yéenay saytu mbooloo mi ak daara ji lenn lu ci nekk ngeen gën koo saytu mu gën a am ak leer di gën a baax rek. loolu la sunu borom digal ab jullit jullit du naa ko mbokk lu mucc ayib ayib rafet rafet lu mu del bàyyi xel bu baax a baax di xool niñ ko gën a jàppandale lu mu gën a sottee ñi nga xam ne ñoo koy saytu xam ne ay ñaqi taalibey Serigne Saliou Serigne Touba ñu daal di xool lool yi di indi ak ragal yàlla seen diggante ak loola bu ko defee kon luñ ci def rek. dañ koy mën a layoog sëriñ bi bu leen laajoon tey jii mbir mi nu mu demee ci saasi kenn ku ci bokk danga koy mën a saytu mën koo wax ba xel yëpp dal ci ndax bëgg na yëpp fépp fuñ ko tuddee tudd mbooloo mi mu ci moom waaye mu doon ci yéen te loolu li koy waral mooy doxinu dëgg rek doxin wu wóor mu tege ci diine ak lislaam ak ub taalube sëriñ bi lu bari dees na ko nettali waaye bind na ba fi ñoom daan waxal am na ñoo xam ne xëy na gisuñu leen waaye ñiy dox doxin bu mucc ayib xam nañ leen ñu roy ci ñooña ñu ñuy wut lu ñuy jàng wala lu ñuy nettali ñu dellu ca mbind ya ndax mbind ya moo gën a wóor loolu yëpp ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax sëriñ bi mi ngi koy tegaat ci seen loxo ah bu loolu weesoo yëpp ku ne xam na ne jamono am na lu ñuy dëgmal te sëriñ bi dafa njaboote mbooloo macha allah mbooloo yi yëpp mu jaboote ji ku ne ku ne bokk fu ne bu ko defee loolu nga xam ne réew mi da koy dëgmal te mën naa am ñu yegsi ji te du yàgg lool loola sëriñ bi li ko ci booleeg yéen xam noo ko li ko booleeg yéen ci mbirum yàlla mbirum sëriñ Touba bu taalube fi mu ci war a taxaw dina ko taxaw ba mu mat sëkk dara du ci xeebu dana ko dox doxi bu mucc ayib waaye li nga xam ne it lenn la ci biir àdduna yi am na ci loo xam ne da koo bàyyee coobare kenn bu nekk ci mbooloo mi bu ko defee bu yegsee nit ku ne am na loo moomal sa bopp luñ la bàyyee ko xool fi sa sa bëgg fi ci jëm sa tànn fi mu jëm sa coobarewu bu ko defee nga def ko nu mu gën a mucc ayib na mu gën a yiwee te doo ci yàqal kenn kenn du la ci yàqal loolu tam sëriñ bi mi ngi koy bàyyiloo xel ndax jamono juñ toll day jamono euh, yi rumeur déggale ak fekkale dafa bari day jamono yi manipulation day jamono yi désinformation wëlbati ay wax bu ko defee yéen seen diggante ak sëriñ bi dara doxu fi lépp lu ngeen dégg bu leen ko déggee ci mbedd bi bu leen ko déggee ci jum yooyu ma wax léegi waaye na ngeen ko déggee ci moom na ngeen ko gisee ci moom bu ko defee loolu moo gën a wér lépp ndax jamono ji loolee day am ndax jumtukaay yi ñuy jëfandikoo bari na ñiy ciblé ci ay kilifa bari na loolu kenn ko ci nekk na defar jëmmam defar toogaayam te xam fii mu soo fu mu doon mu doxin mu doxee doxin woowu nu mu gën a yiw gën a baax bu ko defee buñ ñu yegsee ci yooyu itam noonu ko sëñ bi waxee tamit ñu ñu ñu ñu ñu jàppee ñu jàppee ko noonu te ñu moytu te ñu moytu yooyu mu waxoon léegi ndax booy xool at yi ci ginnaaw ci lu mel ni julli ayit yi ci lislaam sëriñ bi am na lu ci ciy junj léeg waaye xel dafa tolloowul wala ñi nga xam ne ñooy taataan xibaar yi xëy na bokkuñu niveau waaye dana ci junj yu am solo yoo xam ne laaj na sax gën a ak di ko déglu xam ne baat yu am solo la yu ñu war a xool yu ñu war a sàmmanteel ci diggante baay yi nga xam ne daan na ko jëfandikoo ci jamono yi weesu lenn bu ci nekk am na maanaa lool luñ mën a xool la càmbar ko ndax it day wane ne xam na li xew xam na fi dëkk bi toll li yitteel nit ñi ci li war a xam xam na ko waaye dafa am loo xam ne aw doxalinam la moom noonu rek lay doxee ndax dafa yor mbirum Serigne Touba mbirum Serigne Saliou du lu ñuy weer ci bedd kon bu ko defee na ko ñëpp xamee noonu Serigne bi foofu rek la nekk. Euh, ci tënk daal ñi ngi leen di sant bu baax ci turam di nangu addiya ji di leen ñaanal sunu boroom yokku nii ngeen ko bëggee seen jëwrin wax na ne ngërëmul sëriñ Saaliw la wax na ko ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi dégg na ko lépp xam na ko dana ci taxaw taxawaay bi mu ci war a taxaw xam naa kon Mbàkke loolu moo nekkoon kàddu yi ah bu ko defee it loo ñu ci wax rek ñu doxale ko noonu waaw waaw kon sëriñ bi it ñu ngi gën a fàttali lool yi ngeen xam ne yëpp àdduna daa toll foo xam ne xëy na lu jóg rek nga wax ko loolu du am njëriñ lool ndax it nee néew na ku mucc ci lool yi lu jot nga wax rek boobu lu jot nga wax rek néew na looy mucc ci njuumte walla wax loo warutoon a wax waaye it léeg-léeg am loo leeral dana ci baax moo tax yooyu ma doon wax yooyu ci junju ci diggante rumeur yeeg manipulation yeeg désinformation yi ak récupération yi ak waxi rumeur yi yooyu yëpp daa daje ci jamono moo tax bu njaboot gi dajee waxtaan ak ñoom ci seen wàllu diine waaye wax leen fi àdduna tollit da ciy baax day am solo lool ndax kat nag léeg-léeg nga xamal ko ne ko lii ngay def xam naa ko baax na ci moo waral yooyu yëpp rek kon noonu ñu ko waxe léegi bu ñoo defee it ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu information nga xam ne ay journaliste lam wala loolu mooy seen domaine nañu ràññee ne information dafa am waaye it euh, baat bi ci des ñu koy tuddee euh, renseignement it dafa am information mooy loo xam ne ku ko dégg jëriñoo ñëpp a koy jëriñoo waaye renseignement nag mbirum biir la loo xam ne ñam koy wax amuñu ci njëriñ waaye ku koy def yàq rek la bëgg def kon loolu itam dañ ko ciy dolli ci ak leeral bu ko defee muy doon loo xam ne ku ci nekk dana xam lim ci moom dañu gën a góorgóorlu bu baax sëriñ bi dina ñaanal ñëpp bu kon euh, ñi ngi sàkku mbooloo bi ñu gën a dal sëriñ bi dana génn taxaw nii bu ko defee ñëpp buñ dalee toog rek kenn ku ne dana gis waaye ñi ci kanam buñ jógee day indi raj raj loo xam ne dootul jàpp ne noonu bu ko defee ngeen bàyyi ko xel Euh, ñaan ñaan gi it sëriñ def na ko ci am ndox bu ko defee mbokki taalibe yëpp di ngeen ko mën a am ci seen jëwriñ ji fi toog jërë ngeen jëf lil muslimin na waxal li defika bushrana malik ni yawm ashay allah yafarixuni من البشارات في دارين جيرانا ملكني اليوم شيء ألا يفارقني من البشارات في دارين جيرانا عليك وزني بأرض أفكار أجيء بها مهن الفيوض التي تنسب ويدانا ليسخ دواما فتوات نكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قدانا أنت العليم الذي جاء ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي أياس من لوهم جاء ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي